àndal ñun ba ñuy agressé taxaw fii di def affaire waga boobu boobu yow kenn xamu yow yaa wagawul yow waaw maa damaa góob ah damaa góob waaye dama siti li jaay li jaay may da woo dem mën na ko dama bul dem demal bul dem bu fa wax suma tur woowu ma ko woowu ma ko waaw génn rek ay bool ay bool tey dina la sàpp la génn waaw barki maam saa bi woo yoo ay bool moo génn ay bool dina la sàppi génn waaw baax na kay koy lamsate yow yow tappet nga oh, bu ñu yow ngay ragal yow fe jéema bul fàttali ay jooy yu méttee la fa génnee ah, ay jooy nga fa nekkee woon di dimbali la kan nga fi woon aleykum salaam wa ngi delloo ziar bu faale moom woote yàllaa gën du ne moo ngi nii kër gi kenn amul jàmm ba mu ñëwee ba tey ci ay bétis la dëkk dàq na ñëpp ba sama xarit kenn nangu dugg fii waaw yow nag laa ci rus amatuma lu ma ci wax ñu ngi jéggalu bàyyi yaaram bisimilah. allo. naka yaaram li may dégg nag. ah. yaa ngi tuub mooy lan. yow ki nga nekkal fii moo la féete mag. am na wala amul. dëgg la yow sa joorin nii la la yaree si sa biir kër ah yow nga war a joxe bon exemple yow ci biir kër gi nii mooy tax ñuy yàq deru Baay Faal yi ah mooy ay mirage toj kër séparé kër pour lan yow tool ba moo gënoon metti da doon gis sax dër xam na laa bëgg ci weeru koor la ñu nekk te weeru yërmande la damaa bëgg nga jéggalu sa mag ndax moo la féete mag ndax lii bu ma bàyyi woon sama sa jëwriñ ñëw dina metti si yow torop kon daara ja xam nga nu muy demee ti yow damaa bëgg nag nga bàyyi lépp lu sedd nga jégalu sama te bu ma fi déggaat coow maa ngi yegg daara ja maa ngi lay xaar léegi waxtu la ko jox sëñ bi ñu ngi jéggal waat daara ja dañuy tegu ci yoon bu ñëwee ci kër yi di dekkoon. waaye dundu nga buubal bagage bi mu dem daara ja. kii balaa dellu daara ja ma koy tëjluwaat 200 mètres bu rek leetu 200 mètres la jëm. tey bu baax ma dégg nga ma expliqué yow man dama lay wax rek da xam am nga chance. yow am nga chance. soxna si soxna soxna jëwriñ moo tax. mais jour boobu moom nga xam lépp dëgg la. jëwriñ eh, eh! man man pare naa si ñun ñun ay Baay Faal la ñu dañuy jëfe ndigal. kon ay ndigal nga ma yab. waaw damay yab kon ci biir la. waaw ngay wax rek. moom kay ñaar nga ciy tànn moom. Ah, ay jëwrin bi wala boor rek. léegi da ngay topp foofu ma topp ma ko. jeex na waaw ah. jëwrin wala boor rek. tànn ci benn comme que sa koyee quoi. yéex naa bàdd bàdd bi. Ah, léegi ñooy bokk nekk mu may tuxal li muy tux. eh du eh booy yow rek la naa loolu. xanaa gisuloo kii. kii band band lu bu tax ma njaab njaabu booy pikin ni yéex naa de ko ne de loo wax suñu jaay tey ah. xaw naa dégg loolu xër nañ de. band toog si kaw boo ko jàpp si band toog bu ma man dama koy bañ a dóor rey waaye njëriñ toogal foofu rek waaye sëñ moo kawe ah waaye yéen xanaa yéen lu kawe yéen ñi mais bokkul bi bi bi ma quatre waaw ñun suñu état dafa kawe de sonn naa trop mais mu ngi jégalu si kii bi naka mu soo sant yàlla si la nekkee naaj. naaj mi naaj comme d'habitude ah ñu ngi laa war a laaj gëj a gisee da nga raar. waaw du ma raar booy. ah seen kër dafa am lu ma fa métti. daanaka ah, dina sama nijaay da nga fa ñëwoon xam nga seen xaw ma géwél boobu noonu. mu gën a néegu bëgg lu mu am lu ma métti. waxuma la dara seen Baye Fall bi ñëw gën ma yokk yokk xar mi kawa. Baye Fall men waaw seen Baye Fall ba xaw ma Baye Fall ah ma nu fa demee noonu. waaw kon jot na laa. Eh, daf ma wax fa lu ma métti te Baye Fall du doxalee noonu loolu ma tax ma raar kër ga. no Baye Fall mi sikkir na ndeket yow. yow yow yaa ngi koy soog a xam yow. loolu bett na toog di dagal sama xar yi ay ay ah waaw. waaw. waaw ah, ah, tamit jox ma ma élevé. yow nga élevé yow mën tudd élevé wuy ma jox ma benn lappe. sama nijaay lii pëli ne rokk mi rokkuma loolu la bul sonn. Eh, sama nijaay la xaaral kon mu jur. la may xaar bu abam jë. ah dama koy sàcc ba. eh man bëggum la ñu de. yaa ma gën a xam ne man bëggum la ñu sàcc day wóor man sama ganaar yi maa ko moom jox la benn ganaar bu baax jural ay ganaar nga ci lekk. man lappee nga may jox rek. loolu amul problème léegi dinañ dinañ kii quoi. waaw ma jël si ko. bu wax dara xam naa man maa ngi ñëw mais léegi dangay jaar nga ñëw ñu dox fa aywa fàtte woon naa la ñëwal nga ndog si comme ça ma sa digg booy est-ce que dinaa mën a ñëw ndog si booy waaye Fall moo tere ñëw kër ah yow ñaaral di nga ko gérer amul problème su ma ñëwee di ko gérer yow ñëwal ñu nga ndog si suba jaana dinaa ñëw incha allah waaw nga baal ma si gunge bi na dégg nga waaw de xar moom gis nga nu mu yow bii dafa niroog yow quoi xar nga may ah, booy maa ngi booy sama gayan nga oui, bon. On gagne. Voilà. Ok, bon, merci. Fumay ndogo, fumay ndogo, fumay ndogo, fumay ndogo. Ba njëkk ba yaakaar ne ay nga toog fii naa ay bu fumay ndogo fu ma dul ndogo. Ba aussi ba ñu doo yëglu. Wallaay yëglu yow yàqu ma der de damaa xamul te damaa xamul fu muy war a ndogu jee tey. da ngay bàyyi yàq der. yàq der mu da ci amul fan laay ndogoo tey damaa am fu may ndogoo. yaa ngi si jàmm baax. waaw maa ngi si jàmm si waaw. ah anam mbeer. mu ah, ñaari fan ngi ba njëkk. tegu ma la bët. moo tax ma sol sama dàll yi ñëw di xool ba xam ba jàmm la. jàmm la maa si jàmm. waaw ah, yow lan la munoo wax ak man ngay wax ak man waxu ñàkk kersi lan la. xam yow yi nga bàyyi su géwél la mais géwél ko am fu la de yaa ngi comprendre man maa doon ñëw nag ba ñu dig ma ay rey mënutuma ñëw ma toog sama sama buntu sama buntu kër sama garab gi féex na tabarikàlla macha allah gu góor ak gu jigéen la gu góor gaa ngi ni gu gaa ngi ni ah, si sa dëgër fit moo tax nga jël ñaari garab naan bu góor ak bu jigéen yow kan moo la tëgg ko ba nga naan ay rey kan bàyyi fan leen daf may rey sa booy boobu hmm, bandi la si damaa rey kay Baye Fall man daal nii la nar a kii man. ah wax la moo de barki moo ñaay ci ci location bi Alice nii la def. joxewul lu mat ñu wax mu ne moom moo koy mottali tey mu ñëwati digle ay rey. si Alice moom na la ñuy ñëw bi yëpp problème Alice moomu la yaa ngi dégg keroog gis na si kër gi mu attaqué ma di ma ji ah, ah, xaw ma lan nee na man ah, Alice laa seet. xam nga nag jigéen a tax ñu bëgg a jël sama bakkan bii. ci tànk mbokk la doon ak baax ma ma téye sama bopp dinaa la wax lenn Baye Fall mënul rey sax mbóot waxuma laa ak yow an kay mën na rey mënul rey kenn Baye Fall mi tëdd ma ne la lenn dinaa la ko wax Baye Fall dina dina réglé ci nii baa ci naa wala maa ma delluwaat ko fa mu jóge woon ah, point barre loolu yow la engagé man loolu man lay xaar ci ndox mi dem naa sa kër ba nga ko gis Thank you.